mbokk senegal tey jii suñu réew am na ndam senegal am na ndam ndam loolu nag suñuy gaynde yi ñooñu ko may ndam loolu mooy Afrique yépp juróom fukki réew ak ñeent ànd wuti coupe bi xale yi andil ñu coupe fii ci Sénégal muy guleet ñu ngi ñaan yàlla mu bañ a yem fii li ma wax nag mooy sant leen ci turu réew mi yépp gërëm leen wane nañu fulla ak fayda wane nañu jom wane njàmbaar liggéey nañu mànkoo nañu a ay jàmbaar lañu kon nee naa leen gaynde njaay mbara wàcc ngeen jëf réew mi bég na ci yéen lépp lu ñu defal mérité ngeen lu ko ëpp kon nag yal na leen yàlla jàppale ba fi ngeen jëm ngeen am yeneen i ndam coupe du monde nee naa leen nag duma leen laaj coupe bi waaye nag bëgg naa nag ngeen yegg demi-finale de la coupe du monde loolu rek laa leen di ñaan Sadio Kalidou Aliou te yaakaar naa ne mën ngeen ko kon yal na leen yàlla jàppale ngeen def ko jërë ngeen jëf de la République euh, qui annonce euh, ses récompenses pour les Lions, 50 millions pour euh, toute la délégation de cette Cannes 2021. Et puis ces euh, médailles euh, dans les ordres nationaux, Mama Moussayan, Fatmata Savane, Mirmangok, président Wale Mbekte Reumi.